ah Alaaji. waaw mu kii revue de presse. ah la mu la wàcc nag revue de titre. am na yoo xam ne sax ah, revue de titre. wala ah. jëm mag. am na am na dépense ni mu dul wàcc ni mu dul wàccee borom kër. waaw yow nii la la doom yaa ngi ruux jëm mag gëmantu gi. lii daal xale yi ko mën. waaye baat bi ruuxul. baat bi ruuxul. su ne woon léegi tribune yéen a kaay. man waral dama la téye instant bi dama la téyeel rek mbay. nuyu Simon maa ngi lay nuyu. di nuyu Fana ak sama papa chéri Yacine sama rakk ju baax ji maa ngi koy nuyu. surtout nuyu leen di ziar bu wér a wér a wér a wér di euh, tàmbalee ak euh, tribune yéenekaay yéenekaay nag dafa ne test bu mag jëm ci présidentielle bi. te ab duutu piqûre la tey jii la ñuy duut piqûre bu njëkk. kan mooy yuuxu foofu. ragal piqûre fii ku njëkk yuuxu kan la. en tout cas. yéen kaay bi moom jiñ na ko coalition yu mag yi. Hmm. ndax nee na nag sor bi boo moytul ñoo ci gën a lakkale ndax xam nga coalition yu mag yi dañoo def riir gu rëy jël lañu am lépp daal di génn ci Sénégal ndakaaru feneen ak feneen fexe ba jël collecté le maximum de parrainage nee ñoo yaay pour nat na hmm. ay petit ñoo xam ne ay parti yu ndaw lañ hmm. wala ay petit coalition comme ni ñu koy waxee nag ñu bëggoon nag ba jël le maximum de parrainage imagine tey ñu def tirage ñu ndaw ñooñu ñu tuutoonee njëkk jàll. problème. ñu tuutuut ñi ndax danañ danañ mën a jàll. c'est c'est très risqué. très risqué oui. parce que. am na yenn position boo ci nekkee mais. pour nga jàll ci sax extrêmement compliqué. c'est ça mais ñoo tax ñeneen ñu opté pour le parrainage. oui xam na di nga ci ñëw sax. Mm-hmm. ci kanam. mu ngoog euh, tribune yi kaay ne. pari bu risqué la pour ñi nga xam ne grand lañ leen wooyee muy grande coalition yi en tout cas étape bu njëkk ci wàllu parrainage moom daan ki tey lay doon ci réew mi Maître Sidiki Kaba moom ma ngay dalal xel ya Ndella Madior Diouf yéen a kaay bi ne ma takko kaso maltraitance yi nga xam ne ñi ngi koy def ci tout tànk yi démb euh, fafara ci tës bi mi ngi am ci réewum Sénégal te maltraitance nag façon bu ne la mën a amee ci réew mi waaye sa yi nga Euh, ndorteelu 2024 moom ñàkkub mburu lañ koy doore ci réew mi waa président Macky Sall nag ay gaayam ca orkajere lañ doon xeex ci hmm. jawbe yéene kaay bi ne maire bii di Kalidou Wagué moom daanaka dañ ko naroon topp dañu ko faa dóor ba maar day te lépp nag ña ko jiiñ ay yow attention gars yi nag ne président Macky Sall booloo la woote bu woote woon ñuy xeex l'observateur xëy ci loo xam ne daanaka dafa metti accident bi amoon ko ñu wax ci waxate ci yéen kaay bi ne 40 la woon ñeent fukk ñu faatu léegi juróom-ñaar fukk ñoo xam ne faatu nañ te ñi ngi ànd ak njàqare blessé yi jamono ji ba dañoo ubbi groupe WhatsApp ngir xool ndimbal goo xam ni mën na leen génne ci jafe-jafe bi yéenekaay bi nag ñëw na ci Amadou Ba ñu bëri jàpp nañ ne bu ñu ko woteelee daanaka mooy jëbal président Macky Sall troisième mandat loolee nag mën naa gànkal wala gaafal Amadou Ba ak candidature am bi euh, euh, wala ah, dëgg la Amadou ah te kàddu googee mën naa tuur yéenekaay bi kon mburu foofu ko farine bu ko nekkoon dëggantaan sax du fa. Macky Sall Macky de. du <laughs> Macky Sall Macky. Macky am. fermement yi noonu. quotidien dafa ñëw. Oh, euh, ci li nga xam ni it moom moo di recours euh, parrainage euh, parlementaire da xam ne si moom mooy li nga doon wax sànq. Mm. ñenn ñi daw nañu ko ngir làqu ji foofu. ndax xam nga bu nekkee ndaw yi dañoo njëkk jàll ñi nga xam ne ñooy ñun duppee yu mag yi ne forcément ñii moom mooy jàll ñoom daw nañ làqu fii ndax am na assez de député xam ne mën naa tax jafe-jafe teggee mais dina am avantage dina am au moins un parce que mhm. boo jëlee entre guillemets ñi ñu mag ñi fi doon bàkku ne am nañu 3 millions de parrains xaw ma 1 million xaw ma nangam mil ñooñu bu ñu libéré woo jël le parrainage des élus mais dañuy yokk chance su ñeneen ñi waaye mais mais mais ils sont combien. Euh, ñaar la ñu sax d'abord au au ah, selon. est que mat nañ cinq est-ce que mat nañ cinq partis. waaw. il faut ñu mën il faut les énumérer. Mhm. boo jëlee Benno Bokk Yaakaar. Ousmane Sonko wàllu nga jël taxaw nga jël wàllu. Mhm. kan nga ciy teg est-ce que du kat. Hmm. Habib si waxuñ ne ci la bokk wala.

man kii dama cee dégg. Ah, la ñu wax. déedéet ah. pare néew ma ko de. mosoo ko koo pare. ni midi. bu dee sama hmm. député bi du ko yàq naa ko jox. loolu laa ay defe bu dee nag keneen la ñu indi koo xam ne du Ousmane Sonko sama député bi du ma ko jox. ak ku mu mënti nekk nag. le quotidien muy leer ba pare gis nga lii gis nga ñi ñuy wax naan ay ñoom punkal yëpp def nañ parlementaire moo gën a assurance mm-hmm. mais seize points ngay remplir ba pare déggoo ma di mm-hmm. seize points ngay remplir donc le la parrainage gars yi dañ cee concentré ba bopp mais am na yeneen ci biir yeneen ah. pièces déggoo ma di pièces yi benn bu ci manqué tirage bi tey doo ci bokk aywa mm-hmm. na conseil constitution indi sa dossier ñu jël léegi bu ñu demee nag ba dara desul nag lu dul wane ñan ñooy ñan dem ci wàllum parrainage ak yooyu dañuy génnee seize points yëpp yëpp yëpp teg ne lii lii lii bu ci benn manqué ñu ne la yow bokkoo lu ñuy éliminer benn kese euh, benn tunu parlementaire ba pare ñëw ñu ne la yow sa titre fiscal sa casier judiciaire sa carte d'identité sa nangam lii ci am mën nañu am recours du ñu recours du ñu recours hmm. benn pièce manqué wala baaxut bokk ci liste ñi ñuy def. ah doo ci bokk bokkoo ci bokkoo ci. non mais mais mais ça c'est pas l'étape non non attends man ça c'est pas l'étape suivante ça c'est l'étape suivante. commence non non non. non non étape vérification. boobu ngay waxee ko sort lañ jëm ci wàllu tirage au sort. tirage au sort pour vérifier ñan matale parrainage. déedéet déedéet déedéet pour ñu ordre de passage. ordre de passage. non non non non attends dafa am tirage pour ordre de part ñu xool kuy un deux trois ba centième. après non un deux trois boobu noonu nag mu maas bi. mooy vérification waaw non xaaral loolu. non bi dafa xaaral je t'explique dama ne. partage bi mooy dañuy tiire tey. ne voilà euh, euh, euh, parti sangay numéro un yaay njëkk a jàll. parti nangam yaay deux. Ah, mais ma ne li ngeen wax nii muy. compl vérifier ba xam tous les tous les documents yi nga xam ne ne les éléments ñuy laaj pour un candidat je crois que c'est l'étape suivante comment ça se ah, fait si on verra bi foofa nag non xool ab dëgg lu vérifier 16 points yi ba pare laata ñuy jàll maanaam 16 points ndax yow bokk vérifier après jàll ci étape ñuy def tirage bi ñu demee ci député yi élection législative yi mm. ñu ne léegi tirage la ñuy def comme saa nga xam ne affaire bi léegi doot mm-hmm. nekk fa di buuxanteeg nangam sangam je pense que ci étape tirage bi bu tirage bi ci la ñuy vérifier doublon yi yow bu dee yow moom di nga am sens parce que kenn nekkul sa kanam aywa keneen kii ñëw ci ginnaaw doublon mi day wàññeeku day minime ki ci topp ki ci topp doublon mi di gën a yokk passage boobu noonu moom moo waral ñuy def wàllum tirage bi Mamadou Fofana léegi mhm. tey mhm. loolu loolu moo tax ñuy def tirage bi mhm. tirage bi dañu bañoon xeex bi fa amoon am loolu moo tax ma wax ko ne képp koo xam ne sa benn dossier dafa manqué élimine ci tirage bi tey ci tirage bi mu ngoog euh, lu ko quotidien dafa wax nag ci xiif bi nga xam ne mi ngi ci Sénégal lu toll ñetti téeméer fanweer ak ñeenti junni ci doomu aadama fi ni soxla nañ ku leen dimbal ceeb suukar dëwlin xeebuñ dara yaa ngi xiif ah ñetti doom benn naan ko matale nag wax leen nag wax leen nag réew mi fi mu toll nii xiif moo fi am nag nee na lu toll ci ñetti téeméer ñetti téeméer ak fukk ak ñeenti junni ci doomu aadama tey jii soxla nañ ku leen dimbali ci réewum Sénégal libéral kaay dafa ñëw nag ci kër yër mande mbir moo xam ne nag mbirum business la woon yenn kaay bi ñëw ci ndeel mi nga xam ne dafa bëggoon ut xaalis ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jur seen doom enquêteur nag ñoo xam nee na ñaar ci juróom benn ci bébé yoo xam ne faatu nan euh, ci biberon yoon joxee baanaka baaxul ndax biberon troisième âge ak yooyu la leen doon joxe di waccoog Euh, di di manqué ndox ba daal di faatu Ndella Madior Diouf ak assistant lañ leen di yóbbu ca mandat de dépôt ak juróom-ñett ci ay doomu aadama waaye soxna yi ñoom dañoo daal taxaw di xaarandi àtte ba ñu yóbbu leen waaye nag euh, bu ñu leen di àtte daanaka du leen kaso bés bi le jour dafa daal di ñëw ci Anta Babacar Ngom bi nga xam ne dafa bëgg système éducatif bi. waaye kan la Bilal Diatta moomu nañ ci kaso bi. c'est un maire. Ah, mi ngi nii mi ngi nii ci ci mi ngi nii ci ci ci ci libération. ñi wax ne le maire Bilal Diatta dañ koo déjje meereem. ñi wax ne Bilal nag démb bi na bataaxal boo xam ne nee na képp koo xam ne xaatim nga bee ko waroon xaatim dana la yóbbu ca kanamu yoon ndax ba tey jii mi ngi nekk kaso waaye mi xaatim te mi ngi doxal mairie Kër Massar Sud na mu war dañ dañ ne ñenn ci waa Pastef. Mhm. ñu ñu destitué daaneel Bilal Diatta man loolu mënuma ko gëm te man gisuma lettre bu ñooñu noonu bind sama bët parce que gëw ma ni soxor yegg na fenn yow mën ngeen bokk benn parti ngeen di xeex ba nekk maire ñu tëj ko ci ay manifestation yow nga tax kor naan kii nañ leen ko daaneel te ay xat-xat mu nekk ci sàccul fenul jaayul drogue et puis le général des collectivité locales sax d'interdirul mu exerce jusqu'à présent sa fonction de maire bon Bontulaay 56 s'il te plaît. 56 bés bi le jour daal euh, ni ki président Léopold Sédar Senghor ni mu ko defee ci 31 décembre euh, moom président Macky euh, Macky Sall dina ko defaat tàggoog Sénégalais chance boo xam ne Abdou Diouf amu ko woon président Abdoulaye Wade amu ko woon tey président Macky Sall am na ko Bougane Gueye Dany nag ma ca njaayum livre ba yor yor yéen kaay ne ñaar fukk ak ñeent ci ay poñ ci soxal ci programme boo xam ne wàllu koom la lii sa joyanti réewum Sénégal lii la Bougane Gueye Dany bëgg Sénégalais yi jël liiram bee nga xam ne tekki la ko daal di dippee daal di koy liir a xam yan ak ak a jaaree bëgg daal Euh, Sénégal ci wàllu koom Bougane Gueye Dany candidature présidentielle 2024 yoor yoor yéen a kaay xamal ma ne dina joye Sénégal ndax Bougane nee na ñun ñooy génération bi nga xam ne suñuy loxo dafa set wecc te loxo yi lañu war a jël Sénégal jébbalee ko mu tàbbi ci yeneen loxo ñu xam ne loxo ya mu nekkoon baaxul nekk moo nar a wóor Bougane ne at wii nga xam ne jëm nañ ci fas nañu yéen a jël ay habilité yoo xam ne joyante Sénégal tabax ko ba Sénégal di gën gi nga xam ne neex na dundee bëgg euh, Bougane Gueye Dany ne ñu daal di cay dund pour suñu génération yi nga xam ne ñoom ñoo ngi ñëw dëgg Sénégal am na lu ko mën a joyanti am na ñoo xam ne mën nañ ko joyanti daanaka dañ leen ko jéem euh, muy xam leen nag fi mu toll nii euh, dagat na baatu askan wi xamle ko ci livre bi nga tekki ñaar fukk ak ñeent ci ay poñ moom la Bougane Gueye Dany daal di teg ci wàllu programme ngir mën a joyanti Sénégal ngir Sénégal jëm kanam ngir it daal di tabax Sénégal bi nga xam ne moo wóor le témoin yéen kaay dafa ñëw ci euh, bilan d'étape ci ñaari weer yoo xam ne tournée la arngom daal di cay nekk daal di wër Sénégal ak ruqu-ruqaatam moom jiital arc daal di xam leen ni kon dina joyante yenn ci bërëb yu ci mel ni mbay mi càmm gi ak yeneen yoo xam daanaka réew mi soxal na ko lool tribune sport dafa daal di ñëw ci Tottenham ak Pamar ak euh, ñi nga xam ne daanaka ñu ngi daal di euh, sombre ca bon ñoom nag xamle na Euh, seenu ëllëg ci championnat bu Angleterre bi daanaka mënees na cee xel mën na caa tey waaye bu leen fàtte ni daanaka turbine yëmu ci waaye am na yenn kaay di ñëw tey ji la Aliou Cissé di xamle liste joueurs yi nga xam ne à partir de dix heures ñoo na a bokk ci kan bi nga xam ne fa jëm ca Côte d'Ivoire défendre titre Sénégal tuuti nag moom Aliou Cissé dina daal di wax liste bi nga xam ne mooy liste définitive sunu gaynde yi nga xam ne ñoom na nañu nar a àndal euh, ci kan bi Euh, coow li nag ci Sénégal fi mu ngi nii am na yenn kaay ci ñëw lu ci mel ni Vox Populi euh, ci li nga xam ni moom moo di muy war a dugalaat turam ci liste électorale bi agent judiciaire bu état bu Sénégal def na recours ca cour suprême ngir ñu daal di yëraat verdict bi nga xam ne joxe nañ ko yéen kaay bi euh, ci tribune Odia daal di ci ñëw daal ne régulation bu Ousmane Sonko ci liste électorale bi kii nag dafa gàddu saakam ni un cas d'école la kii ne un cas d'école pour moi attendant d'autres fonctions moom